jërëjëf ñu ngi taxaw ak monsieur ak madame Cissé Mina Dippy Dose from Kër Massar Dippy Dose naka moom. sant yàlla monsieur Djili Der ñu ngi lay ziar maan. mais Mina xamalu ma jaaxal tey da nga defal gars yi surprise Dippy Dose invité wuñ ko yow lan invité nga ñëw G bi si yàgg dugal Dippy Dose. yuuxu nu mu demee noonu. xam loolu loo xamante ne public bi dañ ko doon laajte éditant bi topp ñu featuring bi featuring bi comme que chose euh, fête la boo xamante ne on peut dire fête nationale la ñëpp a fii daje. ñu ne léegi li ngeen ñu doon laaj bàyyi ñu may leen ko après ñu bàyyi ñu génnee suñuy business quoi. <laughs> mais mën nañ xaar projet. waa ñoo ngi man maa ngi waaj a génnee sama projet. non yow ak Dipidose. yaa loolu laay wax nii comme que instant man presque bare naa sama projet moom aussi bare na projet début 2020 damay génnee début 2020 day génnee donc bu ñu génnee noowee ñu ba pare peut-être ñu jéem a booloo def leneen peut-être. mais Dip Doss tey loo yëg bi public bi yuuxoondoo bi ngay yéegee ci kaw scène bi fekk fa madame. waaw waaw waaw parce que man aussi sa fait longtemps defuma genre scène yi comprendre donc fierté la. di remercier waat encore une fois madame aussi moom moom eh, mu may ñu tuuti ci ci ci ci conducteur am ne ma kaay kaay barkeelu donc waaw loolu moom ça fait plaisir quoi te gis naa ne di banque mi ci waaw ci benn jour ñaari jour ah ndax daf ma ko wax après taf taf sunu waa ji drop ñu benn beat comprendre nga papis xam ñu teg ci taf taf. xam nga rek boo yàggee fi boo yàggee seetaan nit ki moom aussi mu yàgg la seetaan yàgg a fréquenté dina am benn courant boobu boo xamante ne day am par force donc loolu moo tax affaire yi cool nii quoi. léegi Dip Doz si lu mu nekk lu nu mën a xaaree Dip Doz 2020 bi. waaw waaw Dip Doz moom mu ngi ñëw ah ñëw ak ay affaires yu bees tax you know. mais guddi yi Dip Doz ban label la ne. waaw Dip Doz mu ngi hip hop music. waaw bi génne woon looring bi donc ñoo continuer di job war a beneen projet boo xamante ne moom mooy gën a big bële xam nga bee benn genre kii woon rek waaw muy noonu bu gën mag bi nag xam nga mu ngi ñëw na ko gars yi waaj ay flavor yu amul fenn yeah daa loolu boo ko waxee dañ koy gëm <laughs> Mina projet bi début 2020 wala début mun nañ xam turu projet bi Mina style la Mina style Mina yow Mina Mina style bi sénégalais yëpp xam nañ ko nga daat non pas son bi en fait album bi Milan style lay tudd parce que style yu différent ñoom si war nekk xam nga ma damaa bëgg sama tur Aminata bi bañ nga ko bañ ma ne changé damaa ne Milan donc bu may génn waa projet génn bu génnee Dip Doz génnee mun nañ xaar Milan Dip Doz 2021 kon waaw mun na nekk ah mun na nekk yow bu ngeen amee doom sax day rab maa ngi leen di bëgg bu baax a baax jaayal sama gars yi suñ dëkkoon di la saaga sa métier bu ko saaga ne waaye kul war lay noonu mu ne yàlla ko def eh, I wanna know lu waral xeetu nit yu bëggul kenn fly let me live my life let me shine yeah liberté mi màkki biir palais sambale nga dëggul faal ko place laa koy diggaale ngir ma fii dafa bëri rappeur eh ma ne leen ñoom ñëpp lay tegal seen eh let me live my life maa ngi dund ak sam te di di jox Ten milli million flow never kill my vibes te dëkk gis ma gën a marsataat ba jag sax dañ koy leeral la police yi rafaat depuis comme ay rafaat dix mille problème lay tegal ay rap ak 47 flow lay doxantoo amuma lu may bëgg damay tëdd di yow di raam di tëkkaat sax di raam li nga lépp lu may def yow nan la lekk tey boole kay géej waay sama kaw te MZ Lamborghini du ma jaax contrôlé kenn bi tax bi kook musique wante bit ñoo fi jaax rappeur sama jaax rappeur rappeuram ci sama jaax ñëpp laa boole def jëf ñi ngi taxaw ak As The Best from waay Géeja génne album bu nice million flow As naka projet bi. bon sant alhamdulilah mi ngi dem mi ngi si marché bi voilà nice. million flow As loo bëgg a wax. million flow ça veut dire melting pot plusieurs styles plusieurs couleurs njaxas flow lépp la quoi mooy lépp. As man yaay sama révélation de l'année mu nekk benn artiste bu am talent ñu koy bëgg bu baax a baax mais As lenn rek moom ma jaaxal da nga cool. waaw naturellement noonu laa mel jarul may c'est pas may tricher wala di wane ni moom nekkul je préfère ma cool kalu sama coin bàyyi son yi def liggéeyam au lieu que ma nekk fii di fës di jaay pare yenn détails ni xajuma si quoi. sëñ mënu ma bàyyi na li ma jàppoon dañ ma baawul ba tey amoon naa su ma xoolee sam ginnaaw dara desu fa dëkk bu xale weesu na du papa ak yaay moo ma tànnal yoon bu ma war a ak saaga yu ma du xarit damay topp sama bësu ma tax wér ma sonal gis naa ne ci kaw seen ay junni ma bëgge benn xëy ba mu fes de lekk lirik tempo bi daw sama sidi doore mi façon la deret def sama temps ci sombre bi sombre may ma espace rampe kilomètre yu bëri te musuma espace maama rek laa wax foog li ci des yar naa dee su ma naree wax ki tax may def lu tax may xeex yërmande jeex jébal naa leen sama bopp lu waay man def topp naa sama xalaat bay wax aadam dee soxla ma ku ma la la la la la la yee tout le monde tout le monde assez ah, mënuma bàyyi ndax ñi ma jàppoon dañ ma baawul ba tey yee yee ñi ma jàppoon dañ ma baawul ba tey amoon envie ne ci leneen lu dul lay ba taa yee yee ne ci leneen lu dul lay ba taa yee wow naa Yeah, yeah, yeah. oh man sama jéem du ay foo xaw ma taw de coow am naa yi def bruit mais ma mbir dem ak wéet ma dàq ba dóor sab wéet bëgg a tabax fi ngeen tooj inspiré ay tool laata album ne def ma seen xool ma ne booy bi la doon daa fi nga jàpp si bruit daa dama dama jàpp rap kaa di fañu ci son saa am ay million flow di bi story di bi story beneen xeetu jàpp musique yow dama gën a dox comme tax ross comme musique ba ma kaw des ak sama fii Everybody right now, I'm not so high with you, kid. Y'all, hey, six, y'all, what the fuck that what make drop my kid? Hey, you know, this guy, they calling up, come on, look about you, I'm on it. Man, it's a call, when you're gonna win, you see, my gonna get the back, it's in a hall. They're gonna have a actually, my dog, the bigger guy, my job, said it all. Been there, woman, deaf, you wanna cut the you're a new man. So, I'm going to big boy. Papa, I'm a papa, I'm a jump, that guy, come, Billy boy, it's Billy boy, and I'd be up for my love, what's my top boy.

franchement parce que album bi mi ngi dem ni mu war a demee gars yi ñu ngi koy déglu maa ngi ciy am ay yenn résultats yi nga xamante ne franchement xalaatuma ko ci woon donc mun naa ne que album bi képp kuy mélomane wala képp ku hip hop Galsen tax a jóg yaa ngi koy déglu am na si yenn gars yi nga xamante ne affaire bi concerné wu leen sax mais dañuy am dañuy déglu son yi dañ koy fil donc projet bi malgré détails yi am ci biir game bi yëpp mi ngi dem ni mu war a demee quoi léegi As mën nañ xaar concert yi quand. incha allah yàggatul dara pour l' instant maa ngi ci ay tournée nekk ci million tour yi si décembre bi mais incha allah dinaa taxawal ay concert dinaa def ay géejawaay concert bëgg naa def ay tournée aussi partout au Sénégal waaw. am na solo As ñu ngi lay bëgg. jee maa lay delloo bëgg di